Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ waaw sëriñ Abdou Khadir day ay kàddoo moom buñ koy wax mooy dañuy sant yàlla bu baax rek di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi te wér màggal nañ ko ba noppi tey la woon cérémonie officielle bi dégg nga li nga xam ne moom la sëriñ Moustapha wax li sëriñ Moustapha wax doy na sëkk ab jàngale ba déwén ndax wane nañ sëriñ Touba léppum lislaam la woon sëriñ Abdou Khadir miy màgg lépp lislaam la woon kon ñi fiy ñëw nañu bàyyi xel loolu te xam ni sëriñ tuuba fa wut foo la wut dëkkam bi la am ak xasaayitam yi ak yoon bii nga xam ne moo jëm si yàlla kon li nga xam moo leen fa man a déllu tey mooy li sëriñ bu wax bu ñu demee bàyyi ko xel xam ni sëriñ ba mu nekkee gànnaar sonn na fa coono boo xam ne liggéey islam rek moo tax mu sonn kon tey lii mooy ak payam di ko rafetlu di ñaanal xalifa Serigne Abdou Murit ak njaboot Serigne Abdou Khadre gépp ñu yàgg ko taxawu en tout cas wax ji dégg nañu ko incha allah dañ ko jëfee. ah loolu ñu yàlla julli ci Yonent bi sallallahu eh, di nuyu mbokk yi ñu seetaan ak ñu déglu yëpp rek ak fi ñu mën a nekk di ko taam jaarale ci suñu xarit suñu rak suñu doomi Serigne suñu Serigne Ahmad Rafaay ak yéen ñi koy jàppale ñëpp. Eh, sant bu baax te bég te ñaan rek yàlla def li ñu teewee ñu teewee ko at yu bari lool Serigne Cheikh dafa fàttali war a fàttali rek ndax wax ne Cheikh Abdoul Eh, lii sëñ Touba wax dañ dégg ko ba taay yi ne ba mu feeñee ba maam Thierno yóbbu tur yi sëriñ bi def ko ne Ibrahima na nga diibal saw yoon ndax eh, fi ngay fi dellu si ko fi tasee fi taseel la sëñ bi wax ñu jéggal ko kon eh, bu ku indi la jooju daraja te ñëpp xam nañ ni mu farloo woon ci diine ji kon loolu ab soññ la ci ñun ndax xam na ñoo xam ne bu njege woon jooju daraja rek dañ naan kat gannaaw man kat li ma bëggoon lépp am naa ko yëpp tudd ma ciy sonn waaye ku ne xam ne ni mu fanki woon diine ku ne xam ne woon ni mu xam woon islam ku ne xam ne woon kon loolu ab soñu la bu rëy rek loolu loolu la sëñ Cheikh baamuwaat rek loolu la ne ku bokk ci Cheikh Abdou Khadre bokk ci Serigne war ngaa fonk alxuraan te loolu mooy eh, eh, sëriñ bi ndax sëriñ moo ne kitaabu ko diini wa wa xilli wa munis yi hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi zakka téere bi mooy sama diine moom Serigne Touba kon nag te Serigne Touba diine la am te Serigne Bachir Mbacke moom baax ma dafa wax ne Serigne Touba daal moom rek mooy diine mooy jaamu yàlla laysa li shay'in xadun fihi illa al ibada day am wàccuwaay bu wér ci Sëñ Tuubaa rek mooy jaamu yàlla kon ñun ñi taalibe Sëñ Tuubaa war nañ lu ñu def ci jaamu yàlla lu ne war nañ ko yokk war nañ koo ful war nañ ca gën a góorgóorlu te jaamu yàlla kenn du ko def ci lu dul alxuraan xasida yi ci alxuraan lañ ko tibbi xasida yi mën nañu wax ne meññeetum alxuraan la kon nag meññeet ba la faa nekk garab ga dafay nekk màgg ba ba ba tóor tóor ba meññ a jariñoo xasida yi génnul fenn alxuraan meññeetum alxuraan la tafsir alxuraan la firi alxuraan la kon nag bu defee rek euh, Sëriñ Cheikh tënk na la war a tënk Eh, ab soññ la ñun ñëpp ñu jëri ko jëriñoo ko te ñaanal fekki ko at yu bëree bëri ci barkeb Sëriñ Tuubaa eh, di sant sunu borom bu baax a baax di sant njabootu Cheikh Abdou Khadir ndax kaddu Cheikh Moustapha gii mu wax léegi ak kaddu yi nga xam ne nii Serigne Cheikh teg na ko ci li muy tekki mooy ndonnu teef li leen Cheikh Abdou Khadir bàyyi woon muy sunna ak jaar ci istiqaama ñoo nga ca fonk alxuraan fonk lislaam fonk mboolem jullit yi loolu la leen joxoñoon te loolu itam ñoo nga ca ku xam na ni mosuñ cee jóg kon nag duñu def lu dul bi Euh, xam ne jitaay bi neenul ndaxte dégg nañ fi yàlla dégg nañ fi yonent bi déggee nañ fi njub dégg nañ fi fonklu alquran mi nga xam ni moo taxal sëriñ bi tabax dëkk bii alquran mi nga xam ni dëkk bii dañ koo tabax ba noppi def fi kiisam mu neex fee mokkale lool lool lool lool liy mokkal alquran ci dëkk bi mokkalewu ko feneen ci àddina bi waxuma Sénégal àddina bi laa la wax benn dëkk bu toll ak Touba boo xam ne am nga ay xafasatul quran yu demee ni ni ko tuubaa amee amul fenn te la ko waral mooy moo ñaanoon dëkk bi mu nekk dëkk quran def ko muy dëkk boo xam ne taxawal julli juróom moo tax leneen nanguwu fi kon nag bu sëriñ bi jógee wax wax joojule bëgg nu jiital alxuraan ci kaw lépp lu mën a doon dañ koy ñaanal rek yàlla dëggal waxam jooju te dugal ko ci noppi taali bi ñu dégg ko te jëfe ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah amin amiin Mbakke Cheikh Amar yàlla na jóg amiin Mbakke amiin Mbakke jërë ngeen jëf mbokk yi doon bàyyi xel Rafah TV ci cérémonie officielle màggal Serigne Abdou Khadir gi cérémonie bi nag jeex na dégg ngeen Serigne Moustapha moom Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne moo yor kàddu njabootu Serigne Abdou Khadir dégg ngeen kàddu yi soññee ak yi nga xam ne jëmale na ko ci Serigne Touba Khadimu Rasoul kaddu yu am am solo nag la fi yëkkati dégg ngeen tamit noonu ki nga xam ne moom la fi président de la république yebal muy ministre bi fi yebal ak ñi mu àndal ñëpp. yëkkati nañ fi kàddu yi am solo ak ki nga xam ne mooy maire bu Touba muy Serigne Abdou Lahad Ka euh, Serigne Cheikh tamit naka noonu moo mujje jël kàddu gi andi na fi kàddu yi soññee ak ndénkaane ak li nga xamante ni si moom la Serigne Abdoul Khadir daan yaree ak euh, waajuram bu tedd wa Serigne Touba Khadimou Rassoul kon kàddu yi nga xam ne Serigne nag jot na ko fee yëkkati euh, yaakaar naa bu ci taalibe yi awee rek dinañ aw tegu ci yoon te li nga xamante ni si moom la Serigne Touba Khadimou Rassoul bëgg ku ko ci jaaral muy yoonu siraatal misa tawféex yaakaar naa kon euh, jafe-jafe yu bëree bëri dina wàññeeku euh, Serigne Modou Mamoun tamit naka noonu dégg ko ci biir Rafah bi kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fi Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly di responsable politique fii ci Touba yëkkati na fi tamit kàddu yi am am solo ci micro Rafah bi kon maa ngi sant équipe technique Rafah TV bi ma àndaloon yëpp muy DC muy Serigne Mourtala Fall Serigne Talla Assane Diom jàpp ci caméra bi Maguette maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal Serigne Cheikh mu yàgg fi lool te wér di leen jox dig daje Masaalikul Jinaan incha allah jër ngeen jëf. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. ñëppay dañ agréé